ñëpp xam nañu ni euh, Samba Sarr jouru samedi jouru la jóge la la jóge këram dem complexe ba ba li fa xew xew fa bu piqué fa crise dem euh, Dominique yàlla moom ko fa loolu moo taxoon ñu xam ni samedi aussi jour la boo xam ne bu symbolique la si ñun te aussi famille bi demandé ñu ko moo ñu xam ne tamit lu raisonnable la moo tax ñu choisir bi su samedi bi waaw marché bi moom je pense que ni amul changement à part bi li ñu waxoon itinéraire bi nga xam ne Samba jëloon nañ ko bi muy dem ba yàlla moom ko itinéraire boobu la ñu fas yéenee jël moom mooy à partir de 16h ñuy woote ci réunion bi si si si garage Mauritanie bi fii moom mooy euh, koñu lobaat bi jardin jardin public bu nekk fii koñu lobaat dem complexe ba pacifiquement dem Dominique jaar euh, tal bu mag bi incha allah. di si des ñu ñëw ñëwaat ci jardin bi wax ci luñ fi war a wax incha allah